ngay mener un autre combat. Ouais. disons un combat politique. exactement en fait hmm. ce n'est pas un combat politique. de quoi il s'agit exactement. effectivement gis naa si si si presse bi. ñu bëri dañoo wax ne capitaine Touré day dugg si politique. day dugg politique waaw. <laughs> en fait dugguma si politique. waaw ah, dugguma si politique xam nga à l'étape actuelle fu ñu nekk. honnêtement je pense que c'est ce n'est pas le ce n'est pas le bon moment quoi tey man bu ma ko doon def ça on aurait dire dañuy naan est-ce que dañuy yaakaar dafa am lu nekk si si ginnaaw. est-ce que vous avez compris mm-hmm. donc comme ni ma la wax aujourd'hui Sénégal boo xoolee mm-hmm. man je suis un peu le le le je ne suis pas le seul mm-hmm. je ne veux pas aussi me victimiser quoi moo tax je veux prendre en main quoi sans pour autant bàyyi xel influencier et tout ça donc je suis le prototype en quelque sorte de l'injustice boo xoolee man fu ma jóge ba fu ma ñëw tey y naa a beaucoup qui se demandent même comment je fais pour tenir dañuy yaakaar ne peut-être que ça pourrait me rendre c'est-à-dire mën na ma dof loo et tout mhm. ah, ça. léegi xam nga loolu il faut que je le mette à profit au profit des Sénégalais. Mhm. xam nga bu ma fi nekkee eh, di soraale kii dina wax le kii dina finalement je je risque de ne pas avancer c'est-à-dire je risque de garder cette coquille des militaires. Mhm. ceux qui me jugeront ils me jugeront en tant que capitaine mais il faut le reconnaître moi je ne suis plus capitaine je suis un Sénégalais. j'ai 32 ans. il me reste combien d'années à je peux mourir demain on jamais mais je peux vivre aussi quarante ans encore bien sûr yàlla na ko yàlla defal donc pourquoi moi je dois me cacher ou prendre en compte ce les gens il faut les gens m'ont des gens sont venus vers moi mm-hmm. ils m'ont proposé un projet mm-hmm. ñu ne ma yow doy nga ñu pour lutter contre l'injustice ñu ne ma yow tey li ngay def ba euh, tenir mm-hmm. ça nous pose problème ñun ñu ne ma ñun ça ne ñu ne ma daf ñu xaw a jaaxal. Mm-hmm. est-ce que mën nañu waxtaan ñu xool format boo xam ne parce que il faut aussi le reconnaître il ne peut mm-hmm. plus passer inaperçu. Mm-hmm. loolu da ko war a xam. soit nga assumer ko léegi nga def ko. wala tu vas su tu vas nga bàyyi pression bi yóbbu la finalement tu vas nga dem. tu vas disparaître. bu dee contre l'injustice kay lu tax demoo fekk ji ñoom Guy Marius Sagna. non en fait c'est ce n'est la même chose. Mm. xam nga man ak Guy Marius Sagna on n'est pas le même parcours n'a pas le même parcours. te je respecte beaucoup aussi Guy Marius Sagna. C'est quelqu'un qui avec qui j'ai été recruté. D'ailleurs man ak moom la ñu recruté doon relais mooy ñooñu ñuy dàquloo foofu noonu. Mm-hmm. jox naa leen rendez-vous peut-être dans deux ans ou dans trois ans ou dans cinq ans. Mm -hmm. ils besoin de Guy Marius Sagna. waaw parce que man Guy Marius Sagna bu ma gis. Mm-hmm. du kenn koo xam ne ay poste ministre je ne sais pas xaw ma lan la xalaat. Mm-hmm. mais lu ma gisee mu ngi doxal. xam naa ni man mi bu ma nekkoon président demain. Mm-hmm. dina jàkkaarloo il pourrait garder la même posture. c'est mm-hmm. juste pour vous donner man li ma gis c'est li ma analyser par rapport à son comportement. Mm-hmm. on verra que ñii tey di xeex naan Guy Marius Sagna di di du fayeeku attendons de voir dans quelque temps pour voir c'était juste une comme nii ma la wax man ak Guy Marius Sagna on n'a pas le même parcours man tey le fait que bu ma waxee ni que je m'engage dans quelque chose pour défendre l'injustice bon <laughs> on pense qu'il y a quelque que ma demee si si xel. il si ko ma discuter ak ñooñu ñëw si man. Hmm. ma xam ne réellement ce qu'il pense cest boo gisee ma informer nit ñi parce que si si ban bu ma ubbee sama page Facebook ma am tuuti problème avec Messenger. mais j'ai des milliers de messages de personnes qui me proposent des choses. Mmh. Et que j'ai donné le numéro d'un coordonnateur. Le c'est pas le coordonnateur. Ah, enfin, ah, encore, je n'ai pas utilisé le terme mouvement ou le terme association ou le terme parti politique. Mais ce n'est pas aussi un parti politique, pour être clair. Pour être clair, euh, capitaine Touré, wutul parti politique. Ah. projet bon contour lay jël kon comme ni ma la wax c'est on est de réfléchir sur un format très clair. Hmm. Hmm. boo xam ne daal l'objectif mooy xeex injustice. injustice aussi euh, ñu dem si wàllu humanitaire. Hmm. c'est c'est en fait c'est il faut que il faut ma def dara. il faut que je travaille de manière indépendante parce que tey il faut que ma ma am li ma def. en fait je sais que ça na. autrement dit sortir de l'ombre sortir de l'ombre kam ne amatoo choix wu euh, euh, dem sa liggéey ñëw ñibbi. boo boo dox ci mbedd bi dinañ ne ma nga ne. ma ngi moom je n'ai plus te donc ni ma la wax sénégalais yi. one est nombreux. Mhm. les avis sont, sont les avis divers sur les personnes. Mhm. loolu amul problème mais am na si ñoo xam ne yaakaar nañu ne. Mhm. tey mun naa jiite loo xam ne mun nañu xeex injustice di def ay quelques actions humanitaires. ay ay des amis des sympathisants des partenaires. Euh, on est en train de réfléchir comme je te dis. loolu bu eggee. on organisera soit une conférence de presse. mais aussi je voudrais préciser moi je n'ai c'est-à-dire beaucoup moins qu'on me voit comme un comme non je personne normal mm -hmm. je fais tout ce que font les hommes mm -hmm. je mange ce que mangent les hommes cest dire je réfléchis comme les hommes je ne suis pas un messie je ne suis pas un gars et tout te wallu politique aussi mm -hmm. ça clair bu ma ko naroon def mais y a Barthélémy Diaz ici y a pas mais aussi boo gisee lu expliquer ma ne la mhm. que je dois sortir de l'ombre y en a beaucoup qui me disent tey par exemple, non, reste là-bas quand le pouvoir va changer, quand Barthélémy Diaz sera président. il <laughs> va... Mais qui nous dit que Barthélémy Diaz sera président Qui me dit que euh, le ministre de l'enseignement supérieur, M. Omar Anne, ne sera pas, président. Donc il faudra m'exiler ou attendre encore 5 ans pour pouvoir réclamer mes droits ou pouvoir faire quelque chose. Mhm. Ah, voilà. sama mm. profil moom sincèrement. mais yàggul noonu parce que bi ngay génn gendarmerie yaa ngi rappelé benn citation xaw ma Emerson nga jàpp ne tey. Mm. nga dund ci l'indépendance de la solitude moo la gënal. tey yàggul sax nga commencé naan tam da ngay génn commencé waatu nouvelle vie. non non waxul indépendance daal xam nga lu mu wax. Mm-hmm. nee nañ en fait pour t'interpréter ce que dit la la la citation xam nga lu mu wax. Mm-hmm. cest dire boo nekkee si mbooloo boo nekkee si mbooloo. Mm-hmm. da nga war a tout le temps sentir ne que yow si sa personne mooy si sa solitude que nit ñi lu ñuy def bu mu la emporter. Hmm. est-ce que vous avez compris. cest xam nga on peut. bu la nit ñi fëkk yóbbaale voilà tey mun nañu nekk fi si benn manifestation nga fekk benn gendarme par exemple tombe eh, daanu fi. Hmm. gaa jël ay briques di ko dóor. dans ta solitude yow tu dois te dire que je ne dois pas être emporté par ce que ces personne font parce que man. am naa sama solidité am naa sama conscience bopp. ak sa lucidité pour mën a sa bopp. donc c'est ça donc tey. Hmm. loolu xam nga lan lay firndeel. que tey man bu ma crier avec les loups comme on a l'habitude de dire. exactement c'est-à-dire tey wax ne rek comme def nañu ma lii def nañu ma lee. Hmm. c'est ce qui explique ma ne leen on est en d'étudier ça je ne vais pas me hmm. prendre des mois. ça peut même prendre des années. on ne sait pas. d'accord mais ça non non à la mairie de. ou à la Seydina am na ay questions d' actualité yu yu la bëggoon a dégg rapidement parce que waxtu bi daanaka jeex na day day gaaw trop. mais est ce que euh, avant may ñëw ci ci loolu euh, ci suñu commencement waxtaan ñu ngi wax rapport bu gendarmerie defoon un rapport interne. boo xam ne yow mi yaa taxaw ñu def ko pour xool ba xam est ce que effectivement. Mm-hmm. sa liggéey bi ñu la def sant nga ko wala def nga ko wala defuloo ko liggéey bi ñu la sant. Mm-hmm. am na ñu ne yow ci sa bopp dana la ci setal wecc am ñeneen ñoo xam ne ñoom lañ def ay reproches. Mm-hmm. mais malgré tout dàq nañ la nga saisiroon euh, les juridictions mm-hmm. compétentes pour ñu rétablir la ci sa ay àq ak yelleef mm-hmm. euh, foofu fan lañ ci toll léegi avant loolu aussi balaa ma si tàmbale damay mm-hmm. remercier d'abord maître Moussa Sarr. maître Moussa Sarr. voilà et maître Souleymane Soumaré. Mm -hmm. voilà mais c'est c'est des avocats yoo xam ne maintenant c'est-à-dire plus de c'est au-delà des avocats. wax mhm. dëgg yàlla dañ may assister heure bu ma leen wooy décroche. Mhm. léegi boo may ñëw nii. Mhm. maître Moussa Sarr yondi na ma la correspondance bu mu yondi cour suprême pour ne ko. depuis un an saisir nañ leen si dossier capitaine Touré. mais ba léegi gis ñu si dara. waxuñu dara waxuñu dara. lu loolu doon demandé ci courrier boobu ngeen saisiroon euh, cour suprême. xam nga bu ñu ma rajee. Mhm. comme ni ma la wax amul loolu bëgguma si ñëwaat. parce que mhm. comme c' est devant la justice. Oui. je ne veux pas parler pour mhm. influencer aussi euh, décision bi. xam nga.